Alors, je disais tout simplement, vous l'avez tous constaté, il s'est agi de l'ouverture de la session extraordinaire. Le seul élément qui était important, c'était de vérifier si le quorum était atteint, si c'est fait, d'annoncer les dossiers sur la table, que le, la conférence des présidents va apprécier et selon un agenda, on va aller en commission technique pour en débattre et venir en plénière pour entériner. Contrairement à tout ce qui a été dit par-ci, par-là, en me temps par moi, parfois même les citoyens, il n'en est absolument rien. Et le peuple souverain représenter ici prendra toutes ses responsabilités par rapport aux questions qui vont être votées. Nous ne sommes pas des boîtes à lettres. Nous sommes des députés responsables et nous mesurons la responsabilité qui repose sur nos épaules. Nous sommes des démocrates e nous travaillerons en parfaite harmonie avec l'aspiration du peuple sénégalais. waa dama ni li wax ji bari bari baax na li ñuy wax mën a waaxu xam yoon wee ko gën démb ba tey ni ñaa ngi wax yaakaar ni tey la ñuy woote te tey li amoon mooy président woote su wootee ñu xool lim bi ndax korom bi attendre nañ ko maanaam ligne bi ñu soxla pour mën a ubbi waxtaan ci dossiers yi jot su loolu amee leneen lim ciy def mooy waxtaanee ni jot nañ ci gouvernement bi lii ci ay dossiers ndax loolu la ñuy wax euh, procédure d'urgence maanaam nabar su ko defee après ñoom dañuy jàpp date conférence des présidents daje waxtaan tënk calendrier ñu dem ci commission technique waxtaanee ci li nit ñi d'accord ci li baax ci li ñu andi ci li ci desee baax ba segg tënk su ko defee ñu andi ko plénière waxtaanee ko ci la ko nit ñi door a wote li xew booboog léegi yëpp nag parfois da ngay sentir sa une volonté manifeste bëgg a nax Sénégalais yi. waaw dama ni balaa ngay damay faral di wax ni balaa ngay toj gémmiñu sàmm xam li mi wëlis dossier buñ mënti andi du député yi am nañu sañ-sañ waxtaanee ko seen biir dindi ci li leen neexul xam nga amendement am na. xam nga waxtaanee ba ci biir andi des réserves andi même des rectifications ndax yéeni gune rek mën nañ koo gën a ñool ngir njëriñu askan wi li am solo mooy ñu bàyyi xel ni luñ ci mën ci def nañ jiital njëriñu Sénégal ak njëriñu sénégalais fu ci waay mënta bokk politique nag moo baaxoo ku ne fa nga féete ngay fexe xëcc mbir mi yaakaar ne li nga yor a baax yàlla lii baax jariñ sénégalais yi te ñun ñëpp ñu ànd ak sunu sago jiital Sénégal ci lépp lu ñuy def loolu aw ma sañ-sañ bi léegi président nee na léegi ñoom comme d'urgence la conférence des président léegi du lay daje suñu dajee tënk li ñuy wax calendrier bi amaana bu ngeen taaxirloo fii ak ñoom ñuy pare dinañ wax ban bés la ñuy dellu si pour dem commission technique balaa ñu ñëwaat plénière. waaw plénière bi fii la bu ñu demee commission technique waxtaanee ko càmbar ko faram-fàcce ko suñ paree fii lañ koy andi commission technique daal di ko waxtaanee ci kanamu yéen presse bi ci kanamu Sénégal yi balaa ñu koy wote lu mu mën ci doon. ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf